wala bu ràpputit waaye nee na ay teggin nag mooy gànjar boo xam ne du xewwi du ràpp nee na xalaat ab seetu la bu leer nàññ nit bu ko dara jaaxalee ne wéet ci ruq rek xool boppam xool la muy dugg bu dee lu muy teg nit la mu natt ko ci boppam bu dee lu neex la ci moom mu eggale ko waaye su dee lu naqari la mu xam ne bu fa nekkoon nii la ko yéege niñ koy waxe bindkat yi naan leen boo defee article ba war koo génne te turu kenn nekk ca def ca sa turu wayjur wu góor wala sa turu wayjur wu jigéen wala nga def ca sa tur yow te xool loolu bu génnoon àdduna bépp yëg ko nan ngay mel ca ba nga ko déggee wala ba ko nit ñi déggee kon xel ab seetu la boo xam ne nit ki bu ko amagul dara ci diine wala charia waragu ko bu ko amatul it charia wàcc na ko wala dara waratu ko kon loolu nag di xéewal boo xam ne waruñ koo bàyyee kenn mondialisation média yi nga xam ne dafa bari nit di ñu xalaatal ñuy tënku ca loola rek e, mel ni nit ñuy defarale mburu lu ñu jox ñu xalaat ci bu jeexee duñ ñu nàmm suñuy xel loola it bokk na ci ñàkk xam xéewal yi suñu borom yi mu waxaat ci juróomeel bi ne nit ku am am xel te xel ma doon rafet nee na dënnam mooy gaalam mooy du jëf du xalaat du wax mukk loo xam ne dana wax ba noppi gis gann ak yére ba noppi rafle ba ne dumm ngir wax walla jëf walla yéene jëm yéene kon xel ba tey lépp rekk dafay dikk ci ñu jëfandikoo suñuy xel te ni ko mag ñi daan waxe ci ba ñuy am ñu leen di topp naan nit day bu ñëwee sukk fi sa ab room sukk ay tànkam sajj ak gisam nee na bu boobaa nee na óom yi moo banku waaye xel ma bankuut nee na nit buy ubbi xar dina tax ñu sol ndax lu nekk ci biir nit ki rek dafay faral di feeñ ki ab xar nee na nit su mënee dékk lu bari tey laamisoo ay sikkam daal di sóolu nit ku bëgg ay sikkam di feeñ na faral di tudd sikki nit ñi ndaxte ay bët nga yor ak nopp xëy na la nga wax ci moom danga koo gis wala nga dégg ko wala nga xalaat ko nee na ci nit ñi am nañu ay xel am nañu ay gët am nañu ay nopp ni ngay xalaate ci ñoom noonee la ñuy xalaate ci yow mu am mag mu ko daan jàngale ci anam yu leer nee na noo jàppe nit ñi ne lañ lay jàppe ne dafa am waaj yoo xam dafa yéeg ci kaw ak ron garabu ron ngóoñ yi di xool nit ñi suuf ba ci yàgg mu ne yéen de yéen a ngi mel ni ay cuuj ci fi ma toll kenn sikki ne ko moo ne yow it de as picc rek ngay nuróol ni nga leen gisee bay yëg sa bopp ñoom it fañ toog noonu lañ yëge seen bopp na nga leen di xoole noonu it lañ lay xoole te ci biir waxin